président Balla waxee noonu la ah moom am foo xam ne bu fa tollee nekkatut athlètu club nekkatut athlètu sax fédération athlètu Sénégal lay doon comme nag su mooy la fédération maire te baatam fa mu joti suñu bos jotiwu fa dafa war a nekk suñu porte-voix parce que dafa am un maillage global sur les athlètes xam na ñi am chance qualifié ak ñi am chance nekk finalist gis nga Jeux olympiques deux niveaux la il y phase de qualification il faut savoir pouvoir se qualifier mais il faut boo ko defee ba pare da ngay wóoti ji médaille médaille et pour cela il faut une préparation spécifique moom xam na ko sportif de haut niveau la préparation boobu ça se joue sur des détails benn fan boo ci perte day influer ci résultat yi waxuma la nag un mois wala un a du François bi mu waroon jot préparation boobu yàgg na jusqu'à présent jotu ko mu ngi continuer di entraîner alors que ñëpp xam nañ ne tey pour mu nekk finaliste. ñi nga xam ne ñoom la war a jonganteeg faw muy mu leen di muy ak ñoom avant sax compétition bi. dem ñoom fekk leen fi ñu nekk di dawandoo ak ñoom ba xàmmee leen parce que sport dafa am nappante ci biir ku ci nekk nga jël ay repères def lépp. mais soo toogee ba jouru compétition bi ngay soog a dajeek moom déjà mythe bi rek yaa ngi koy soog a gis day wàññi si lu bari. donc tu n'as pas vraiment en possession de tout tes qualités pour nga affronter ko te Jeux olympiques gagné ko du noonu de. Mhm. am et médaille aux Jeux olympiques du noonu beneen bi stop mooy ñi mu fi tudd ñëpp nii ñoom Sanka ñoom Jong ñoom Louis François Mendy mais derrière y' a enn Louis François Mendy yu nekk foofu yoo xam ne suñ leen accompagné woon wala suñ leen mettoon dans des conditions idéales ñi def li Louis François Mendy def xam nañ leen identifié nañ leen xam nañ leen quelqu'un comme Cheikh Tidiane génnagut ci course bi ah. Mm-hmm. il deux compétitions wala trois compétitions yoo xam ne mën na ci qualifier benn yi mooy les championnats nationaux beneen bi ci mooy le meeting de Dakar qui doit avoir lieu le 25 mai prochain beneen bi mooy euh, le relais bi doit bi war a am fële Bahamas ñetti am na ñetti chance pour qualifier ci alors que fi toll nii amul benn accompagnement. d'accord nii du ko pare gu ma de xaaratu. nii di ko nos <laughs> waaw déet waaw parce que war a jox ñëpp joxoom. nii du ko nii nii nii nii du ministère. alors que c'est un potentiel euh, kii euh, olympien suñ ko tegoon ci condition yu baax yu baax benn bis topp damay ñëw si relais bi. tey actuellement on a trois qualifiés di espérer quatre est que xam nga ne on a la possibilité d'avoir douze athlètes qualifiés aux Jeux olympiques parce que nous avons un bu Sénégal war a dawi. aux Bahamas avec huit athlètes suñ fa qualifié on au moins cinq athlètes et on prend les quatorze premiers l'année dernière Sénégal defoon na qualif daaw il avait le meilleur temps que la France mais bi mu koy def dafa nekkul woon ci champ de qualification bi Nigéria lañ ko defee cette année on a la possibilité de l'avoir on a une bonne équipe bu ko war a wuti mhm. sans accompagnement nag toujours suñu partenaires yi ak état ñooy débrouiller mais bés bu ñu ko gagné woon. Mhm. nga dégg gars yi commencé jóg ñi na nan la ñuy jàppale alors que tey ñii su leen puusoon tuuti rek. ñi am ko. nga xam ne trois qualifiés tu auras au moins cinq qualifiés plus peut-être dans les deux compétitions ñuy organisé mooy le meeting du 25 mai ak les championnats nationaux on a yoo xam ne potentiel mën nañ qualifié ba léegi ñu ngi ci liste bi mooy Salissar. Mhm. ak Cheikh Tidiane Diouf. ils ont la possibilité de se qualifier. d'accord.